Aïssa mi ngi noonu li woon démb ak kii di Mbaye Babacar euh, tey mu indiwaat thème bu am solo ñeen li nga xam te moom mooy euh, am lu biir mbay mu doon thème bu doy waar lan moo tax nga choisir déjà thème bi parce que man déjà daf ma daf ma touché. Mhm. ndax sànq maa ngi lay laaj ba xam moom ak sutura ñoo yam. Mhm. nga ne ma am nañu lu ñu euh, nduro mais du ñu benn ñu bàyyi la nga daan ñuy faram fàcceel thème bi. wallaay wallaay ndeysaan macha allah soxna Awa Yombe am na solo jërëjëf am bàmmeelu biir waykat boo ko. am bàmmeelu biir war na jàmm bañ di nettali foo toll na ngay gore te bañ di seddal sab nawle lu ñaaw waaw am bàmmeelu biir euh, xam nga nit ki ñàkk sutura euh, mën na jàkkaarloog yow xawi sa sutura walla mu xas la walla mu wax la loo xamante ni daf la koy sosal yooyu ci xawi sutur la bokk waaye euh, ki am bàmmeelu biir mooy ki nga xamante nii dafay am loo xam ne yow personnellement yaa ko koy dénk yow hmm. yaay ñëw ci moom dénk ko ko walla mu xam ko ci yow te bi bi mu koy xam ci yow defoo pexe ngir mu xam ko ci yow waaye bi mu ko xamee ci yow dalaa bett xam ko ci yow moom it bi mu koy bëgg xam ci yow defutoon pexe ngir xam ko ci yow mu xam ko ci yow waaye mu suul ko ci biiram mm-hmm. nga xam ne doonte dafa laaj bakkanam du ko wax kiy xawi sutura nag moom mooy def pexe ngir xamal la dara mm-hmm. ba xamal la ko walla yow nga koy nëbbatu ngir du la xamal mu fexe ba xamal walla moom mu jóg di la laajte di la luñutu ba di la cerepu ba xamal la suñ ko santee ak suñ ko santut bu waree ak bu warut yépp mu génne ko ngir yàq la looloo looloo di seen ak wuute moo tax ki am bàmmeelu biir moom jamono du ko neex mbaa mu naqari ba mu wax ki amul bàmmeelu biir kon faw mu nekk koo xamante ni nit ku ñàkk sutura lay doon nit ku ñàkk kersa lay doon moo tax ngir nit am bàmmeelu biir euh, jafe na li tax mu jafe mooy faw nga doon as gor su gore hmm. as gor su gore waaw doon as nag yomb na hmm. waaye doon gor su gore moo jafe doon as gor mooy sa baay di gor sa ndey di gor mhm. soo juddoo gor ngay doon allah kulli àll waaye ndax gore na ndax gor mooy nit ki gore mooy jikko ji waaw nit boo doonee as gor nag ba noppi gore ci ngay doog a mën a am bàmmeelu biir mm. ndax liy jóo bàmmeelu biir ci nit mi ngi ci gore ndax juróom-ñetti melokaan la as gor su gore di melowoo gor su gore du digalu munut gor su gore du soppeeku gor su gore euh, du wéet di wor gor su gore day masla ak ku ko jikkoom neexul gor su gore day teral ku mu xamut gor gore day dimbali ku mu tane gor su gore day xam lu jar a wax noppi boobu mooy bi nga xamante ni mooy tax nga am bàmmeelu biir xam lu jar a wax noppi kon gor su gore moo mën a am bàmmeelu biir ndax liy tax nga am ko mooy li lay tënk ci sa gore muy xam lu jar a wax noppi mooy tax nga am bàmmeelu biir su fekkente nag mënoo amoo xam lu jar a wax noppi nekkul ci yow kon doo mën a am bàmmeelu biir. moo tax jikko yi nga xamante ni mooy ay tedd ngay jikko yi nekk ci doomu aadama danoo danoo danoo tegloo danoo sokkorloo maanaam bii mooy jur bii bii jur bii bii jur bii bii jur bii noonu lay dem escalier la. maanaam soo bëggoon a egg tey premier étage wala deuxième étage escalier ngay jaar benn par benn ba mën a egg ci étage ba jaar noonu dem ba fer keroog ngay egg fi nga jëm ci kaw. Hmm. noonu la jikkoy doomu adama teglantoo tedd ngay jikko yi noonu lan teglantoo soo amee bii mu jur bii nga am bii mu jur bii mu am bii mu jur nga mel nii mu jural la lii nga mel nii mu jural la lii noonu la noonu la tedd ngay jikko di tegloo ci nit. Hmm. ba nit ki doon nit ku nit ku baax. nit doon nit ku baax nag ak doon sang tamit du benn. du benn mën ngaa baax te doo doon sang. waaye mbaax moo jur ci yow sang. Mm-hmm. grade yi tamit noonu lan teglantoo. Mm-hmm. dangay mel nii mel ko mel ko ba mu yàgg nga mel nii mel ko mel ko ba mu yàgg mel nii même soo demee ci sunu mag ñu baax ñi noonu la da am grade sangam. di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba am grade sàngam di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba am grade sàngam moo tax ngay am ci wàllu yu xut bu zaman nangam nangam ba keroog ngay egg. parfois ñu dañ naan wét gore wétaliku gore wax jooju lan la woon. waaw waaw gore wétaliku gore mooy mooy gor su gore maanaam soo xasee ba gore nekk ci yow soo wéetee da ngay gore soo wétali ko da ngay gore maanaam li nga xamante ne nii jomb nga koo def publiquement ñëpp di la ko gis ñëpp di ko gis soo demee ba wéet yow képp da koy jomba def loolu mooy wéet gore wéetali ko gore jomb naa wax lu ñaaw mm-hmm. wala ma wala ma wax dégg nii face à ma ko ko wax su fi mooy wéet gore wéetali ko gore mm-hmm. maag Pape Ndiaye ñu ngi nii toog am na loo xam ne du ma ko wax mu taxaw nii du ma ko wax ñemewu ko ko wax su taxawee waaye wéet naa Papa Ndiaye nekku fi man doo nga fi ne ma nekk fekk ñeneen. ma jàpp Papa Ndiaye di ko yekk musiba. waaw foofu foofu am na xam nga parfois dañ naan. Mm-hmm. jëwuma ko parce que bu toogoon sax sañ naa ko ko wax. Mm-hmm. mais le fait que nga wax ko ci ginnaawam te nekk. jëw loolu loolu la jëw. nga ko wax. donte lu donte lu baax la jëw la. ok nit. xam nga dañuy jaawale ay baat yu baree baree bare dañuy jaawale euh, ñu baat ñu baal ma si wax ji fen ak bi topp ci fen ak nettali Pape Ndiaye su fekkente ni am na loo xam ne mën naa ko wax mu nekk dëgg mu nekk dëgg mais su ma ko waxee mu blessé mais pourtant li may wax dëgg la su ma ko waxee loolu fen la toute vérité n'est pas bonne à dire. Hmm. fen la am na bu topp ci ginnaaw fen neexut a wax ci ci ci ci pénc. boobu mooy fekk loo xamante ni amul. nga créé ko wax ko soo ko waxee boobu bi topp ci fen la. Hmm. wolof am na nu ñu ko tuddee mais neexut a wax ci pénc. d'accord. moo tax baat yu ci bëri dañ koy jaawale dañ koy jaxase. Hmm. moo tax yu ci bëri tamit ci jikko yi ak ci melo yi di jaxasoo waaye mag ñi. Euh, dañoo amoon discernement boobu xam baat yi nan lañ koy tëggi ba kenn ku ci nekk ñu mën koo def ci yow nga xamante ni di nga ko xam di ko dundee. di nga ko xam di ko dundee mu nekk point bu am solo mais balaa ñu euh, gën a soxi dañuy daal nuyu ki nga xam te mooy coxo euh, maxu monde la borom la toile mu nuyu la ziar askan wi dégg ci teg coromu askan wi <laughs> mu nga dëgg <laughs> naa la bu baax a baax nuyu naa leen kon alias coxo bu askan wi ayca <laughs> ah, bi yow la nga nuyoo. kii mooy so euh, soir du <laughs> xaar sa passage lu mu gudd gudd dañ lay toog xaar ak ak ay <laughs> toile yu am solo. Euh, yaa ngi nekk ku doy waar. ku naqaree nekkal. bite mun ko rek ba weer bi <laughs> bàyyi jëw bi Aïcha du loolu la ñuy wax loolu la ñuy waxtaanee ñeme ñaaw na co mi ngi noonu euh, coo euh, bu kanamee incha allah daañu ñëw yéen ci actualité toile dina am solo donc Mbaye yaa ngi woon ci point bu am am solo euh, muy ñeel waxtaan bi nga xam te ñu ngi ko ama ci mbirum bàmmeelu biir macha dama la bëggoon laaj rek mm-hmm. tey jii da nga gis nit koo xam ne day am bàmmeelu biir mm-hmm. dafay baax lool mm-hmm. mais day dem ba jëm jamono société bi moo koy changé ba day nekkaat benn nit soppi ay jikkoom est-ce que loolu noonu mën na nekk ci nit. non société bi euh, ku mu changé dafa fekkoon li nekk ci yow woyof lool mbaa nekkutoon ci yow. gis nga maam Cheikh Seydil Hadji Malick bi mu kenn ci ay doomam Serigne Babacar Sy mu demee di ko yóbbu si école dañ na ko dañu ñëw si moom ne ne ko sa doom ji nga nar a yóbbu ci. muy dem di jàng ci école yi mu ne leen bàyyi leen ko mu dem jiitu naa ci moom jiitu naa ci moom dafa am loo xam ne buñ ko defee ci yow ba mu nekk ci yow société mënu ko changer xam am na ñoo xam dañuy tukki fekk fekk ñuy naan sàngara ñu dem ci yenn boîte yi ñu xelal leen dina rus a gàntu ndeysaan ñu jël sàngara di naan commencé naan am ñoo xam ne ci tux noonu lañ koy defee am ñoo xam ne yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne ci noonu la leen di demee influence waaw mhm. dafa fekk am na loo xam ne nekkutoon ci yow waaw mais am na loo xam ne buñ ko defee ci yow ba mu nekk ci yow société mënu ko changer bu doon lool la kon àdduna du baax mhm. Mhm. dafa am loo xam ne buñ ko xasee ba def ci yow mu nekk ci yow ba nga jël ko mu ci sa deret lay daw dootu deñ yokku lay def mais dootul wàññeeku. Mm-hmm. wante nag am na loo xamante ni buñ ko bu ko bu ko buñ ko soppee ci yow wala société soppee ko ci mi ngi mel ni parfois li may dégg nit ñi di ko wax. Mm-hmm. da ngay gis koo xam day def lu baax. damay defal Pape Ndiaye lu baax defal coot defal dig ma defal kenn lu baax mu wor ma. Mm-hmm. wala mu def ma lu ma naqari. man a jaratul may def lu baax def lu baax daal amul njariñ da ngay defal nit njëkk mu fay la njëkk. mu fay la lu bon c'est yow man bi may defal Pape Ndiaye lu baax wala Pape Ndiaye bi may defal njëkk. di ma defal lu baax dafa ma ko doon ngir yàlla. dëgg te yàlla rek ba mu ko defee ba pare la ma wan ginnaaw ma fay kook ma gërëm kook ma tagg ko yoonam nekku ci defal na ma ko te yàlla tax. kon man su ma ko xasee mbaa ma xarab ko moom lu ci yoonam yoonam nekku ci parce que man fayuma ko yàlla moo koy fay. Mm-hmm. parce que kiy def lu baax di ko def te yàlla tax yàlla moo lay fay. moo tax euh, Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax. dafa am benn bis euh, comme ni ko nit ñi daan defee ñaari ndeysaan ñëw fekk ko fa mu toog tawat ko soxla mu ne la mu ne mu ne ko toogal bu yàlla lu yàlla indi nu nu nu def ko ci mm-hmm. ndeysaan am benn daayira boo xam ne dañoo programmé woon dem seeti dem ziyaare ji Cheikh El Hadj Abdou Aziz baax dañ mm-hmm. koy ziyaare ji ñu yóbbaale enveloppe bu am doole ci jamono jooju dix millions ñëw ziyaare ko ko bi ko ko ziyaare ba pare mu wëlbati ko jox ko ki ko ki ko ñëwoon dikkal ko ak soxla ñoom ñu jaaxle ci loolu am sax koo xam ne dañ ci jóg ñëw déy sëñ bi ne ko euh, enveloppe bi euh, am na solo. ndax xool nga ko lu jiitu ko. mais ci fi mu tolloon mu aalu ku ne xam ne allah jab xanaa joxoo leen ma ko ngir yàlla da ngeen ma ko jox ngir yàlla ma joxe ko ngir yàlla moom xam na ne yàlla mooy fay moom amul possibilité fay keneen amul possibilité fay li ngay def di ko def ngir yàlla yàlla mi ngi koy defal moo lay fay da nga ko ko jox ngir yàlla waa daayira bi ñëpp la yàlla di fay moom joxe na ko ngir yàlla yàlla da koy fay ndax boo defee dara ngir ngistal ngistal gi nga xamante ni moo taxoon nga ko defal mooy sa pay kon kooku su ëllëgee da ngay taxaw ci yàlla ne ko man doon naa defal Mbaye Babacar Sène lu ne. mais Mbaye kooku est dina mën a teral ku mu xamul bu dee da ngay def di xaar dara en retour wala ngay def ngir ngistal wala ngay def ngir kooku am nu mu la jàppee est-ce que kooku dina mën a teral koo xamante ni da koo xamul. waaw ñaare nag kiy def te kiy def ak ngistal du mën a teral ku mu hmm. ndax boo teral la ku koo xamul du la mën a tagg mbaa mu gërëm la foo leen di gisante da ngaa dajeeg moom rek nga gis mu nekk ci soxla hmm. nga fajal ko soxla ba nga dem mu dem kooku ndax kiy def ngir gistal dafay bëgg ku ko tagg ak ku ko ku ko ku ko jéebaane ñaare sax ñu bàyyi ba nga xamante ni béréb bi siiwalukaay yi ñëw nan ñu doo ko def ngir bérébu siiwalukaay yi wane ko. léegi ki nga xamante ne lu mu la defal wax ko. waaw ak ki nga xamante ne balaa mu lay mën a defal rek di xaar nga sonn ba ñëw di ko ñaan di raam ci kanamam pour nga mën ko mën mën koo defal ñaar ñooñu moom. waa ki nga xamante ni bala laa defal. nga ñëw di ko di ko jaamu. Mm-hmm. wala nga ñëw nga dem ba sonn. mu doog laa defal kooku baadoola la. baadoola. waaw ndax dañu xamul dañuy jaawale baatu baadoola tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. waxoon naa ko si benn télé bi ñu ma invité woon fan yee baadoola tamit dañ koo abal prix. dañoo yaakaar ni nit ku am xaalis rek du doon baadoola. moo tax damay contre wala ànduma ci sunu mbokk saabalkat yi ñuy wax ñaare muy journaliste yi saa ñuy wax. bu ñuy wax baykat yi wala ñi amul xaalis. Mhm. ñu naan ñu naan doomi bàddoole yi. bu ñu wax loolu loolu ëpp na di wax bàddoole nekkul ci ak ñàkk. Mhm. dëgg la bàddoo la jikko la ak melo. Mhm. mais ak ñàkk. moom jikko bu ñaaw. waaw nit dana yori doon bàddoo la pire. bala laa fajal soxla nga ñëw di ko tarbi di ko topp ko lu ne nga wax ko ko ndeysaan. ba àddina bépp yëg ko mu dox la ko fajal. mbaa bu la ko naree fajal. day bàyyi ba mbooloo taxaw mu ne la ko am. nga jël ko ndeysaan di ko tagg. Mm-hmm. waaw tagg googu ak nit ñooñu ko gis loola moo di ak payam. su ëllëgee taxaw ci kanamu suñ borom di ko réclamer suñ borom ne ko fayoon naa la ci àddina ndax la nga ca bëggoon amoon nga ko tagg nañ la xool nañ la gis nañ ko. ndax gis tal nga ko defee woon. ki nga xamee ne nag euh, daf lay daf lay daf lay teral ba pare wax ko. Mm. kooku dafa amul bàmmeelu biir. mooy li ñuy waxtaane maanaam Mbaye kër seen amul dépense tey amul lu mu togg lu mu joxe dépense këram mu ne Pape de sama xarit la euh, te yàlla ne na ko gan xaaral ma seeti ko ñëw ci Pape ne la Pape tey de kër ga boo sàggantul rek cin du tàkk mm. nga ne ah, daal di yëkkati ñaar fukki junni jox ma ma daal dem ci kër ga joxe dépense euh, bët set Pape dem grand place toog gars yi ba Mbaye Babacar jóge fële di ñëw grand place mu mm-hmm. naan saa yi temps yi dafa sonn de mm-hmm. démb de kër ga la ñëw sax mm-hmm. maa ko jox cent mille su mais siinoo kon démb du taal seen kër du taal añ kooku amul bàmmeelu biir waaw eh? euh, yaa ngi réer <laughs> dama wax waaw parce question bi ma bëgg a poser c'est un ak suñu métier. Mm-hmm. parce que très souvent euh, dañuy wax ni que euh, le métier du journalisme euh, amul bàmmeelu biir. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que foofu ñun mën nañ fa mën nañ fa. mën mm-hmm. nañ fa def mea culpa ñi def fait divers ak def surtout fait divers da ngeen da ngeen di xaw yi sutura nit ñi ay people ak yooyu <laughs> comme genre ak la toile comme ay ñi def ay voilà ak ay la toile comme journalisme en général des fois aussi est-ce que tuuti ci yow ne est-ce que man waaw nettali malheuru jàmbur aussi est-ce que loolu tamit biir très très bonne question mm-hmm. moom laa tàmbalee daanaka mm-hmm. ci bi ma koy fàtt Aïcha ki am bàmmeelu biir bi ci njëkk mooy ki nga xam ne man Mbaye Babacar Sène maa ñëw ci yow am luy nux nux ci sama biir xol di ma gaañ te mënuma koo wax ci pénc te su génnut gaañ ma ma ñëw ci Pape Ndiaye ne ko Pape mun a naam ma ne ko dama def nangam ak nangam wala nangam ak nangam damaa dal mais il faut mu am ku ma ci waxtaanal ngir mu génn ci sama biir ma wax ko ko soulagé wu Pape mu muñal lii nekkul yow la njëkk a dal nangam ak nangam wax ma ba sama xel dal ma dem kër ga tëdd nelaw Pape di ma gis ma koy gis bés jot sax ma joteeg Pape xolam giir ko mu dem ba euh, maa ko denc du ko wax mhm. lu mën a xew ci àdduna pape du ko wax. loolu mooy bàmmeelu hmm. biir. wala man pape bett ma may def nangam. Mhm. te pape jógutoon pour bett ma amu ci woon benn intention. Mhm. man tamit bi ma koy def maa ngi koy nëbb maa ngi koy nëbb waaye pape maag pape yàlla nattu nu pape gis ma pape ni man Mbaye Babacar Sène ak ni ma ko xame ni mu selle ni mu baaxee ni mu nàngame ni mu nàngame mais kii nan la war a amee doyadi guy tax muy def lii mais nit la mbay Babacar nit la kii daal vraiment du nitu dara quoi nangam nangam mais nag ah mbay nit la rek yàlla mën naa am yàlla du ko natt mën naa am daa juum naa ko ko nëbbal loolu mooy bàmmeelu biir. bokkut ak Pape Diop wala mbay Sène jóg daan ne damaa bëgg lu ma defi émission naa xooli ma xool Pape Ndiaye daal bëri na lu muy fréquenté béréb sangam xaaral ma dem xool ko fa. yow yaa jóg di lu ñutu Pape mais amoo bàmmeelu biir. rattax bokkut ak. wallaay bokkut ak. sa dafa am ñu war a xàmmee saabalkat. joxe ay xibaar. mooy journalisme. nga xam ne tey de saxaar gi nga xamante ni dafa war a yóbbu nit ñi ñu liggéey dafa paan saxaar gi dafa paan képp koo xam ne danga daal jël saxaar gi bu subaa bu na nga na nga teel a dem wuti oto bu la yóbbu nga bañ a tardé fa ngay liggéeyee. Mm-hmm. wala mbay mi de ren euh, macha allah baax na lool njëgu gerte gen yooyu sax dañ koy wàññi wala de béréb sàngam am na ay euh, tafaar. maanaam ay agresseur yoo xam ne dañ fay nekk di dogali nit ñi nangam nangam loolu saabal la tudd. saabal journalisme di joxe ay xibaar yoo xam ne dafay jëriñ nit ñi. mais dafa am yoo xam ne dañ na la yow soo ko xamee yow. soo ko xamee. dañ na la yow nëbbu ko. amal bàmmeelu biir kenn wax loowu la ko parce que dafa am wax ju ñuy wax ci néeg. am wax ju ñuy wax ci ëtt. am wax ju ñuy wax ci pénc. soo doonee saabalkat nag wala nga doon. leneen ak leneen ak leneen te xàmmewoo ñetti façon wax yooyu. Mhm. da ngay wax tas penc. loolu la ñuy wax tas penc. d'accord lu ci sa yoon ci mbay seen mi gàddu ab gelam dugg ak moom ci ab hôtel. sa lu ci sa yoon. yow xanaa xamoon ne yow mi ko wax yaa gën a garaaw li mbay seen def. Mhm. yaa ko gën a garawle fuuf. Mm, yaa ngi xas Fatima de mooy people de. waaw non non people ah, moom. defal daal non defal waaw mais ko tas ci internet. non non yow ngay jottali ko. loolu moo am parce que man ngaa def people man a def beneen bi ci des te doo xaw a suturaas jàmbur doo dugg ci dund ak jàmbur. Mhm. dëgg la dëgg la am déet wala people moom ak kii <laughs> non non non. mais Mbaye Babacar Sène Mbaye Babacar Sène gàddu na gel dugal ci moom ci hôtel mais est-ce que yow dund Mbaye Babacar Sène yëpp xam xam mosoo koo gis mu mu gàddu si jaadam dem sa jumaa ja <laughs> mais mais siiw du jaam yi borom ko moom ah, boo siiwee moom. Ah, mbay mbay li mu def mais yonent bi moo ko wax dane dane man kaanu yuminu billahi wa yawmil axir fal yaqulu xayran aw li yasmut waxal lu baax wala nga noppi lu baax xamal nga ma ko wax ko soo lu bon li nëbbal ma ko loolu la la yàlla sant looloo baax ci pénc looloo baax ci société looloo baax ci sunu mbatit moo baax ci sunu culture dëgg la dëgg la mais bu ñu xawantee sutura weerante àddina tukki mm-hmm. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax mm-hmm. déglul mu ne aw xeet te loolu ndeysaan dama defoon benn émission ci télé bi temps ci rajo bi temps yi may def cosaani maam. Hmm. boobu dama tiitoon ma wax ko. émission boobu ba léegi dama ko garder di ko déglu parce que dañ ci teg ay quelque temps rek coronavirus ñëw. Hmm. barki yonent bi. Serigne Cheikh daf ne aw xeet du nu deñ mukk di xawwente sutura yan waroon a nëbb ca biir néeg ya. ñu koy xawente sutura di ko wax ci pénc yi di ko wax ci pénc yi ba mu wesaaroo di weerante ak a xawente sutura lu dul ne xeet waw dañoo dema dema dema dema dema dem ba yàlla wàcce ci ñoom ay feebar ak i mbas mm. yoo xamante ni maam yi leen xamuñu ko woon bu baax mm. aw xeet ay nit mm-hmm. du ñu deñ mukk ci di weerante di xastante lu ñu tonte lu ñaaw di ko weer ci pénc yi mm-hmm. ci pénc ba ñu ko cay weer leen waroon a nëbb ci biir néegi ñu koy génn ci pénc yi di ko weer mm-hmm. lu dul ne xeet waaw dañoo dem a dem a dem ba yàlla wàcc ci ñoom ay feebar ak i mbas yoo xamante nii xeet maam yi leen jiitu woon xamuñu ko woon. mi ngi noonu donc donc seetlu ko ak Sénégal. Ah, wallaahi mi ngi noonu nga ma kii gis nga gis nga euh, Sadika Mbaye Babacar su ma koy déglu day mel ni euh, benn élage Mansour Mbaye la ñu am si plateau bi xam nga li muy def nii waxu démb yeeg yooyu day ba buy réew mi yëngu yëngu yu mag yi. Mm-hmm. ba édition télé yi def édition spéciale chroniqueur yi toog day baax ñu mel ni toog di fàttali waxu démb ak lan la kii waxu parce que wax yooyu am na ñu muy delloo si am na ñoo xam ne di leen fàttali waxu démb yeeg mag ñi mm-hmm. dafa day da da ci am solo dëgg yàlla moo tax dëgg yàlla ñun ñuy kontaan si di ko mm-hmm. déglu ne comme ni mu koy waxee saa yu ñu koy mm-hmm. déglu dañ ci jëlee ay jàngat yu bëree bëri tey mu nekkoon am bàmmeelu bi mu doon thème bu am solo mbay ñu daal lay jaajëf surtout sànq li nga wax am solo yaa ngi nit ñi dañuy jaawal lu bëree li nga xam ne moom mooy euh, doomu baadool ak doomu néew di doole important ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, jërëjëf soxna Awa mu mel ni kon ñu ngi ci bàmmeelu biir euh, dañ doon def euh, introduction bi maanaam pour. pour pour fàkk waxtaan bi. <laughs>